audu billahi min alcheytan irrajim bismillahi irrahmani irrahim wala hawla wala quwata illa billah al ali azim allahuma salli ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara ah nag lu yàlla dogal ci moom daf koy nangu mooy suñu jigéen di suñu sœur Adja Marie Diop Sylla barke démb ci guddi a toog rek kër gi di tàkk te visible la bu mu amee it dëkk bi yépp teew nañ fi am ñu fi teew seetsi ko ndax boo xoolee docteur Pape amul Ndiaye dem moom fi di rafetlu aussi bay Mbaye Niang taxawaay bi mu ci taxaw rawatina ñu nit mouvement religieux pour l'émergence bu mu ko yëgee xaaruñ sax dama ne nga ñañ dem ak directeur xuma et compagnie moom moom day borom kees di nit ku baax nag di doom ci Mariam Diop si laa xuma mii toog damay bàyyi ay mbiram ngañ tënk ko wax ak moom Morgue sopp na bi nga xam ne du seetaan dara lu ñaaw ci dëkk bi dafa ñëw fii seet si ko Nasir Dieng léegi la téléphoné ne maa ngi wàcc kon li li dal Marème ñun ñëpp la dal Abdoulaye Dieye moo ko njëkk a woo suba teel te yëpp ay rafetlu la ñu toog ànd ak ki nga xam ne mooy communi euh, communicateur bii di Jóob moom du seetaan lu ñaaw du Njaay docteur Njaay ñëw na fi ñëw na fi mooy communicateur Jóob mooy communicateur Thiès lu mu bokk saf na saf mais Marème day nit ku baax day nit ku baax day nit ku baax lii nag dañ koy nangoo gëm ci yàlla nag lu yàlla dogal dañ koy nangu ndax boo déggee sa moroom jullit da ngay kii alaaji Ngagne Faye mii toog di ko baax di porte-parole mouvement religieux pour l'émergence dañu bàyyi mu yaatal leeral mais xuma dalal jàmm ci Thiès ndax yow da jàpp waa Thiès yëpp di dox fii lu rafet nga téye marem moo la jëyee ba léegi boole la ak marem ba tey da nga téye nga def kër gi sa kër la yow mii suñu doom la di nit ku baax yal na yàlla def jàmm ñëwoon nag seeti ko di ko ñaanal yàlla na fi yem te yàlla na ci xéewal suñ borom topp ma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim waaw comme ni ñu ko waxee rek euh, ñu ngi woon fii tey ci résidence d'Aby ci kër euh, présidente collège des femmes de Benno Bokk Yaakaar madame Mariam Diop Sylla yàlla dogal am instant ji bu am këram bi mu amee léegi nag Thiessois yëpp Sénégalais yëpp mbooleem koo xamante ni am leen tegaak moom ak membre yi nekk ci gouvernement bi yëpp ku ci ne ku mën a ñëw ñëw nga ku mënta ñëw jël nga sa téléphone woote bokk ak moom tiis bi nga xam ni sunu borom moo ko dogal te ñu ñaan yàlla mu yem fi te yàlla bu mu dal kenn di ko mastawu euh, di ñaan yàlla aussi tam li nga xamante ne ñàkk na ko ci yàlla ko yàlla delloo si euh, di sensibiliser waat ñëpp rek euh, di leen xamal ni ñun ñëpp ñoo bokk Thiès lu dal kenn rek mel na ni ñëpp la dal donc euh, tey ñi ñëpp daje nañ fi sëñ Omar Dem ak mouvement religieuse pour l'émergence ñëw nañu ak ak Baye Ngañ Fay ñu fekk fi xuma ak sunu rak sunu xarit euh, di njaw ñoom ñëpp ñu ñëw doon ko wu di laan daal na ko ñëpp yëgee noonu waaye sant nañ yàlla ndax kenn ñàkku ci bakkanam bien vrai que ni y a beaucoup de pertes matérielles mais kenn ñàkku ci bakkanam mais looloo neex yàlla parce que moom it ku gëm yàlla la ñu fekk mu doon ku gëm yàlla doon koo xamante ni nangu na dogal ndax dafa am wax bu am solo bu wax lii lépp ñun ñoo koy liggéey te yàlla mi ñu ko jox ñu liggéey ñoo ko mën a liggéey kon loolu dalal na xel ñi ngi sant ñi fi jaar ñépp nag ku lim juum waaye ñu ràññee ci koo xamante ni li tax ma sepp ko ci Euh, du responsable politique waaye taxawaayam ci dëkk bi moo rafet muy El Hadj Mor Gueye sopp na bi di remercier bu baax docteur Pape Amadou Ndiaye di remercier bu baax euh, monsieur le ministre Mame Mbaye Niang ministre du parce que moom ci tutelam la bokk ak euh, ki nga xamante ni mooy la monsieur Abdoulaye Dieye directeur général de la l'AIBD moom woote na bokk na ci njëkk a woote comme ni ko sëñ Omar waxee Thiès gépp daal wane nañ fisale les jeunes docteur Augustin Tine honorable député Abdou Mbow mbooleem koo xamante ne rek tabarkàlla macha allah yaa ngi bokk ak euh, Marème langue politique gi yéeg nañ sa taxawaay mais docteur Ndiaye jërëjëf parce que dafa déplace ñëw ba fii teew wax wax ju rafet euh, assisté ak euh, président Amadou Makhtar Seye kon ñi ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp yàlla yàlla dool di jàmm te yàlla ko fi yàlla yemale ndax Thiès ñun ñoo bokk lépp tey résidence de bi am na benn facet boo xamante ni ku ci ne gis nga ci sa bopp ndax bari na suñu ñëw yoo xamante ni fii lañ koy defee euh, te loolu lépp dañu koy ubbil yaatalal ñu ko ngir jàppale son excellence kon ñu ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla yemale li ci des lépp mbarkeel ko jërë ngeen jëf. salaamaaleykum euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di lu jotaay bi di nuyu waa Thiès Info di nuyu njabootu Thiès gépp di am euh, Dakar Actus bi ñoo xam ni ñu ngi koy bokkandoo ci li nga xam mooy li fi wàcc te wàcc fi mu war a wàcc nag. ndax suñ borom bu la na mu dafay du la liggéeyloo te la mu def ba taxawal lu mel nii bu doon yittee boppam dong la xëy na mu dellu Belgique ba mu nekkoon wala ci yeneen bitim réew yi nga xam te toog di noppalu ko mais pour développement ak euh, yokk ci li ne mooy euh, euh, l'emploi des jeunes bi kër gi nekk kër wàccuwaay boo xamante ni nit koo xamante ni ñëw nga muy man muy keneen ubbil na la ay buntam euh, kon kër gi dafay nekk comme kilifa waaye moom njabootu Cees gi ñëpp ñoo ko bokkandoo euh, ñu koy masaw bu baax a baax te di ñaan suñu borom subhaana wa taala mu gën koo taxaw kàttanal ko ba mu nekkaat yeneen yeesal yoo xam ne ñoo si topp ci at mu bees mi euh, di rafetlu aussi li nga xam te ne bokk na ko ak njabootu boppam bokk ak njabootu ñi mu bokk langue gi ak njabootu Cees gi yëpp. wax dëgg yàlla loolu mooy suñu tànk yi tax ñu jóge ko Dakar ñëw ànd ak moom ñun dañ dañuy doom ci kër gi. Euh, mu nekk yaay ju neex a tiitaroo koo xamante ni xeebul kenn ci wàll communication ci sa wàll jëmm aussi euh, vraiment j'ai pas les donc mais ñu ngi ñaan daal suñu borom gën a taxawaat encore liggéey bi ba mu bokk ci li nga xamante ni yi ñi gën a euh, bokk boole ci top référence yi lay bokk waaw salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu ko ci nekk di jiital ci nuyu bi imaam dem sëñ Ngagne Diop le grand maa bu baax Euh, di masawu sama yaay vraiment tey dama ko jot ci guddi gi rek yàlla def ma xëy na tey moom balaa maa dem fenn fii laay jubal si ndax Adja doon na sunu yaay euh, waaye di yaayu Cees waayu baree baree bare man maa gën a tuuti peut-être ci ñi mu nekk seen yaay di leen jëriñ guddeeg bëccëg suba ak ngoon ci conseil ci finance ci lépp waaw kon tiis bi bu ko dalee ñun du ñu def lu dul ñëw teew masawu ko bokk moom tiis bi tey bu ñu amoon loo xam ne ñun ñoo koy andi pour defal ko dañuy ñëw rek commencé waaye ñëw ci wetam ba mu xam ne ñun yëg nañ xar bi ko bi ko dal euh, waaye di sant yàlla waaye fekk nañ fi tamit une dame brave fekk nañ fi koo xam ne ku gëm yàlla la vraiment parce que lu mel nii ku mu jóge ci yow boo àndul a gëm yàlla dëkk Euh, bu nit ñi ñëwee neneen lañ lay fekk waaye boo ko gisee sax day mel ni dara dara dara kiiwul dara jotu ko mais lii gis nañ li fi am lépp waaye di ñaan yàlla suñu borom muy muy euh, ay ngëneel ay yokkute ay xéewal ay wér parce que àdduna bi yaakaar naa ne wér rekk moo jara ñaan jigéen la gu rayante ba taxawal lu toll nii Euh, kon bu ci ndog ndogu suñu borom ñëwee dañuy koy ñaanal yàlla muy ay ngëneel ay yokkute ci barke Seydina Mohamed ah di sant aussi ñi nga xam ne suñu ay mag lañ suñu ay kilifa lañ ñu dëkk fii ci Thiès te teew fi te teewal ñu fi ñun jeunes yi euh, ku ci mel ni euh, Mor Gueye Sopp na Nabi le ministre Pape Amadou Ndiaye gis naa démb ay photo PDG Pape Doumbouya ñëw na fi honorable euh, Abdou Mbow appelam ak Augustin ñoom ñëpp vraiment ñu ngi leen di sant bu baax di leen wax ne li ñu def ñun lañ ko defal ñun doomu Mareem Jóob si laay kii da di sunu yaay bëgguñu dara jot ko euh, dañ koy ñaanal yàlla aussi yàlla gën ko dëgëral taxawaay góor la yor vraiment newul bu ma doon góor parce que lii mu taxawal bëri na ay góor yu nekk Thiès euh, mënoon nañ ko def bu doon ay soxlay boppam kase kase kase bu tëddee këram soxlaam faju mais tey dafa ñëw taxawal loo xam ne Thiès waay yëpp ñu ngi ciy gis seen bopp ci côté emploi mu di ci mu mu di ci def lu am solo di jàppale nit ñi bu parti bi soxlaa mu ubbil ko bu dul waa parti bi bu doon ñeneen sax dañoo soxla mu ubbil leen kër gi kon ndog-ndog bi bu ko dalee du ñu def lu ñëw ci wetam masawu ko. vraiment di ko ñaanal yàlla muy ay ngëneel te lii gëj fi lool lool lool lool ndog ndog nag ak àdduna ñoo ànd waaye fu mu ñëw rekk suñu boroom moo koy namm ci jaamam te yàlla na ay yokkute bi saayir wa baatin ci barke Seydina Mohamed jërëjëf bismillahi ala ashrafil anbiyaahi sayyidil insi wal jinne sayyiduna muhammadun rasulillahi wa ala alihi wa asaabihi xuril mayamin eh, mbokki lislaam bi mbokki Thiès mbokki Sénégal ñu ngi fii tey ci kër Adja Marème Diop Sylla plateau bi ñuy toog mooy El Hadj Omar Deme ñu jiite mouvement religieux pour l'émergence ci wetam sunu doom ju baax ji njaw nga xam ni doom la di lépp ci Adja Marème fa tabarakallahu ak sunu doom ju baax ji muy Alaaji Xuma directeur général Xuma et frère di doom di soppe di lépp ci Adja ak sunu doom yi bopp nag nag Alaaji Mod Njaay Jóob fa tabaarakalaaw nga xam ni communicateur traditionnel international au niveau de la république ñoo toog ak man Alaaji Ngañ Fay mi yëkkati kàddu fa tabaarakalaahu bëgg fàllu mu baax mii nga xam ni boo ne bëgg fàllu rek ñëpp xam ni moom yëmul ci làmmiñam dafa bëgg sëriñ fàllu ca ku bëgg sëriñ fàllu sëriñ fàllu dalay booleeg nit ñi mu ngi nii toog di sunu doom di soppi ñëpp di soppi Adja Marème man nag li may ubbee li may tëjee mooy li yàlla wax rek waaw wala nablu wannakum bi shay ah, min al wal juin wa naqsin min al amwal wal anfusi wa samarat wa bashiri sabirina allazina isa asabatum musibatun xaalu inna lillahi wa inna yàlla yemu ca dani ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaikumul muxtaduun ah, firi ko dina yomb dafa wax ni dama leen nattu man yàlla min shay'in ci mbir ci xiif mbaa musiba mbaa nga bay doo gis dara mbaa sa alal dem mbaa ab bakkan yu bari rot bu keroogee nag man yàlla ñi may déglu mooy ñi wax ni mu yàlla ñun kat yow leen jóge ci yow lañu dellu ki tax nu ñëw nag mooy Adja Mariam Diop ku neex la ndax damay wax ni umul masaakin laa ko tuddee waaw mooy ndey ndey jàmbur yi mooy ndey jaboot fa tabaarakallaahu ba noppi nag bëgg-bëggam yépp ci jaami yàlla yi li sëriñ Fallou daan wax naan jaamu yàlla ci jàmm yàlla yi mooy itteem loolu son excellence le président la république xam na ko ndax li président bëgg rek moom la ajàmbarim bëgg li président bëgg moom la ajàmbarim suba ak ngoon bëgg kon bu amee mu euh, tiis wu mel nii sunu doom yu baax yi ak fa tabaarakallaahu sunu kilifa gu tedd gi El Hadj Omar ñëw wax ma ko ma ñëw man Alaaji Ngañ li may mën a tontu rek mooy ci wàllu yàlla li yàlla wax rek heureusement nag kii moom li ma waxoon rek moom lay waxaat ku neex a waar la ndax ku gëm yàlla la waaw da dafa mel ni dara méttu ko ndax bi ma déggee ñu ne Alaaji Mor Gueye sopp na bi ñëw na fi rek ak li leen ministre de la république mais loolu doy na ndax Alaaji Lamine Gueye euh, doomam dafa faatu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ñëw ne ko Lamine siggil mun ne ko lu tax may siggi mu ne ko koo xam ne boo jooyee ñëpp jooy waratoo jooy mu fompura ngooñam moo dal nag kii kii moom jooyul dafa ne rek lii dafa gën ndijaay kon euh, li nuy nu yëkkatee daal mooy li yonent bi wax rek boo bëggee sa njulit mat li nga yéene sa bopp njulit nga yéene ko sa mbokkum njulit loolu mooy suñuy tànk ñëw fi masawu ko ci métit wi masawu ko ci tiis wi masawu ko ci naqar moom boo ci wéetee yow dong lay métti waaye defe naa ni dafa mujj sax ni nit ñi waaye doy na nag bu bu jarul sax ngeen may masawooti loolu kuy dem ba am naqar ña sa naqaru yëgatoo ko nit ñi mettit la ko defe naa loolu moo dal Adja jub si la kon si la ñu ngi lay ñaanal waaw ah, li ma waxoon rek ci saal sa saal bi avant ñuy génn ci palaato bi sunu borom dañu wa asa an taqrahu shay'an wa huwa xayrun lakum neeti asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun ñu ne tekk yàlla mooy tontul ko mu ni walaaw yaxlamu wa antum la taxlamoon léeg-léeg ngay bañ lëf sunu borom ne loolu de mooy sa ngëneel léeg-léeg ngay ngay bëgg lëf yàlla ni aade ah, bu ci sóobu waaye yenn saa yi nag ma def man yàlla ñu nii damay yàq fekk damay defar wax naa ko léegi saal bi lii yokkute la si la lii ngëneel la lii deel xool xaw ma de waaye ñi doon soccu ndax doon wax ni noonu bi ci bon mooy bi nga dëkkal muy fexe lu bon ci xamoo ko waaye noon yi du ñu reede sopp yi nag moom dañ lay gën a xanaa ñaax nga gën a dëgëral sa diini dëgëral sa lislaam ca xam ne kat doo li li ko Sëriñ Fallou waxee léegi rek waaw doo doo jigéen ju ju yem ci sér rek newoo doo boo doon góor da nga ñëw takku dimbali kan le président de la république ci emploi bi waaw boo sañoon dara du taxaw takk sa ndigg rek kon ñu ngi lay ñaanal lii yàlla na lii gën ci yow yàlla nay ngëneel ci yow bi jaay seydil wujjóot wa almisoot man nag comme li li li naan ko am kudd du lakk rek xale yi ubbi wax man it man Alaaji Ngañ ma man tëj rek tëj bi daal mooy man li yàlla wax rek laa lay dolli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.